alors Abdoulaye euh, cette fois-ci le vainqueur sànq ñu ngi koy waxtaanee ak Kajoor le vainqueur euh, ki nga xamante ni moo nar a remporter cette Coupe d'Afrique des Nations dina am 4 milliards euh, dina am 4 milliards alors loolu rek man je me dis que source de motivation la mm-hmm. voilà vu que yokk nañ ñu yi loolu déjà source de motivation la pour tous ces pays là yi nga xamante ni war nañ fa tase daal di jongante xam nga euh, fi mu toll nii football bi dafa nekk si ay niveau yi nga xam ni <coughs> excusez-moi dafa euh, soxla yooyu. Mm-hmm. pour defar football bi euh, boo gisee xëy na Sénégal def résultat yi c'est à partir de l'argent qu'on a glané si compétition yi ak li nga xam ni FIFA mi ngi koy joxe si lañu tabaxee ay centre tabax Guéréo defaraat tubaab jalaaw mettre les joueurs dans des conditions de performance commencé nag di suuxat pépinière bi. xam nga Grégoire mu wax euh, léegi di indi mayonnaise boobu ñu war def entre anciens xam nga lu suy charmant foofu cest dire les anciens aujourd'hui sont conscients que ñoom ñoo war former booy yi. xëy na bu doon bu njëkk ba booy bu ñëwee yenn joueurs yu mag yi dañuy siisu. Mhm. mais aujourd'hui boo xoolee joueurs yi seen bopp ñoo koy wax naan ñoom ñoo war former pour affaire bi law ba faw mhm. ñoom ñoo war former pépinière boobu pépinière boobu dépassé na sax ñoom Lamine Camara yooyu dem na ba si ñoom Sénégal am na relève bu baax léegi nag bu ñu gañee loolu mhm. daf ñuy permettre ñu investiraat ko dans le football investiraat ci ay infrastructure investiraat <clears throat> dans le football local mhm. parce que ñu bare dañ ñaan suñu championnat baaxul mais c'est avec ce championnat avec nos joueurs locaux qu'on est parti pour remporter le CHAN avec ñi nga xam ne xëy na jàpp nañu ñoo ñu gën baax championnat loolu lu ko indi mooy xaalis boobu nga xam ne dañ ko tiiree si football bi du dugg suñuy poste noonu en tant que fédéraux mais dañ koy investiraat ci football bi on a besoin de ça ñu ngi encourager CAF xëy na mu gën yokk loolu sax quoi.